soxna Fatou bintu Samb bu télévision Touba TV waaw sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax a baax waaye di ziar sunu sang bu tedd bi sëñ Abdou Aziz Abou Madiana Mbacké borom Touba yëmbal borom sur ma son di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd di ziar bu baax nag suñu yaay Fall bi suñu sang bu tedd bi di soxna Kodulu macha allah Baye Fallu sëñ Abdou Aziz Abou waaye mu mel ni ki rek suñu bis bi macha allah ni nga ko waxee noonu rek la bisu sëñ Abou Madiana Mbacké moom sëñ Baara moom sëñ Touba Xadim Rasul waaw ñu fas yéene ko màggal fii ci Touba Guy mind nin koy defee rek nag moom maanaam ñëpp xam nañ ko rek màggal ko ci wàcce kaamir bernde macha allah sëñ bi waxtaan ak taalibe yi soññu leen ñaanal leen ci noonu rek lañ ko fas yéene defee waaye nag wax ci sëñ Abo du du du ci ñun ndax ku xool suñu sang bu tedd bi di sëñ Abdou Aziz Abo Madiana Mbacke borom Touba yëmbal rek xam kan mooy sëñ Abo ndax macha allah li naan la ca maam sota koy jël waaye doom mooy doonu bàyyi te moom doon na waajur mu tedd yi sëñ Abou Madiyana ci mbaax gi ci yaatal gi ci baatin gi waaye ci faj aajo yi jaam loolu moom xam nañ ko ci moom Balla Sabouri kenn ku ci nekk rek fii ki ku toog fii ci bis bi rek tey jii nga ñëw fi am na foo euh, foo féeteeg sëñ Aziz foo xamante ne bi fekk na la mu dimbali la fa jëlee la ci lëndëm yóbbu la ci leer ba ci man mi toog nii di taalibe loolu nag dañ koy ñaanal Mbàkke mu yàgg fi loolu te ànd ak wér moo xewle nag waaye kenn mun a ci sëñ Abo too xool sëñ Abdou Aziz Abo macha allah nekk ci biir kër gi nag doon maamam sëñ Touba Xaadim Rasul la maamam nekkoon rek ca la nekk kon moom Mbàkke dañ koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak di sant ñëpp di jaajëfal bu baax na ñi nga xam ne bi soxna yi ma nekk fekk fekk fii nii ci kër gi soxna Ndey Jóob Cuur ñu bu baax di ziar soxna Yaadi bu Lamp Fall waaye comme ni ma ko waxee sànq rek yaay Fallu sëñ Abdou Aziz Abou duñ ko duñ ko fàtte benn yoon ndax ku yaatal la macha allah buñ toogee fii jëmmam rek moo tax ak suñ jëmm sang bu tedd bi sëñ Aziz Abou jërëjëf soxna Ndey Jóob Cuun bu Abdul Aziz Abo Madiana Mbàkke lañ may wax euh, sant yàlla bu baax rek euh, bi nu ko sunu borom mayee ñu fekkewaat bis bi di sant euh, Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di sant Sëriñ Abdul Aziz Abo Madiana Mbàkke mi nga xam ne mooy sunu bunt ci Xaadimu Rasuul nga xam ne yàlla daf nu booleeg moom mu nit ku baax di nit ku yiw ku bëgg nitam li soxna Far Samb wax léegi rek la ca maam ja sëta koy donn son donn na sëriñ baara donn na xaadim rasul euh, jël ci baayam bi nag sëriñ abo madiana mbàkke ñun nag euh, sëriñ abo xëy na bi ñu koy gis booba tout tànk lañu waaye sëñ abdul aziz mi nga xam ne moom lañu ñu maasal jamono euh, yàlla boole nu ak moom ñu xam ko ci jëfinam ak jikkoom ak baatinam ak ngorom ak fullaam xam na ni lépp ci baayam la ko jëlee kon nag ñi ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ba ñu fekkee màggal gi ndax sëñ Abdou Aziz dafa fonk lool màggal gi euh, daf ko fonk lool ba yemalewu kook dara tax loolu yëpp bu koy def rek bëgg baayam bee tax ndax xam na ne li ko baayam defal xam na ni li ko baayam liggéeyal muy taaw macha allah bu mag taaw nag baayam bàyyi ko fi ndax xam na ni bàyyiwu ko fi euh, dara réerul macha allah. ñëpp bég nañu ñëpp kontaan nañu euh, ci màggal gi te ku dem guy mind tey da fa gis loo musta gis ndax bañ nañ ko ba màggal gi màggalu baatin lañ ko tuddee waaye nag di sant bu baax soxna Koddu Luum ndax nag euh, jigéen mooy yor kër euh, yaay fàll la ku baax la ku bàkk ku jàppale sëñ bi la ku jàppale sëñ bi la moo nu yaatal jàppale nu wax dëgg yàlla ba dara jeexul dara manqué wul Euh, yal nañ ko fi yàgg teewal di sant soxna Yaadi euh, mu Lamfal FM di di sant euh, soxna Faat Bintu Sam mi nga xam ne sama sang la bu Touba TV macha allah bég na lool waaw bég na. auzu ah, billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim xanaa waaj ko ak sant yàlla rek di wax alhamdulilahi rabil alamina bi nga xamante ne dellu si nañ ci bés bi nga xamante ne mooy bésub jàmbaar yi nga xamante ne mooy sëñ Abo Madiyana di ñaan ku mën turam doo làkk ñu ngi koy siyaar bu baax di ñaan yàlla yokk ay leeram ay mayam di baawaan ba egg si waaye tey ji nag dañ fi fekk li ñu fekkee ñu sëñ Abo waaye ñu ngi fi fekk tey ki nga xamante ne mooy sang bu tedd bu yiw bale sëñ Abdou Aziz Abo ñu koy ñaanal bala isa yàlla defal ko jàmm te may ko wér bu baax a baax suñu borom dëgëral ko ba at bu nekk mu taxawee bés bi at bu nekk mu gën a gën at bu nekk mu gën ba gën a bari ay xéewal kon kontaan nañ ci lool bu baax sunu teewaay fii nag ñun soxna yaa ñu kenn indiwuñu fi ku dul bu tedd bi nga xamante ne mooy sëñ Abdou Aziz Abo ànd ko moom ci mbég mi waaye nag di ci ànd ak soxna su baax sii soxna ko ndax soxna ko dullum dafa nekk nit koo xam ne dañ ne borom kër borom kër gu baax koo gis am na soxna su baax ku nekk ci ginnaawam boo boo xoolee soxna Koddu Lum mii muy nit ku baax nit koo xamante wax dëgg yàlla nit ku am taalibe nit koo xamante ne nit ku am taalibe nit koo xamante ne nit ku mën a toppe te boo rek muy dem nga xamante ne so kër soxna la kër kër kilifa la nekk kër kilifa gi mu Abdou Aziz Abo yaatal na matale na ndax ku fi ñëw rek boo waxee mu ne soxna Koddu dafa baax te loolu dafa mu andal kat ku bëgg doomu aadama la kii mu àndal ku tabe la kii mu àndal ki mën a dimbali doomu aadama la mu jàppale ko ci lool nag dëgg yàlla dañ la ñaanal yàlla defal la jàmm te may la wér bu baax moom it nee na kontaan na lool lool lool ci bés bi nee na képp koo xamante ne foo ti jóge rek ñëw ci borom këram bu baax bi ñëw ci sangam ju tedd ji soxna ko du nee na mu ngi lay sant bu baax a baax ndax nee na moom amu kenn kenn kenn ku du sëñ Abdou Aziz Abo kon ku ko bëgg bëgg na la ku ko fonk fonk na la nee na mu ngi kontaan ci ñi nga xamante ne wala ku mel ni Ndey Jóob mi nga xamante ne bu ko du jógee rek mu jóg waaw sama ma sama soxna sële sama soxna sële nga xam ne moo nekk Touba TV baax loolu moom it mu ngi fi waaye boo demee ci kër sëñ ab kër abo sëñ abo Madiana ña fa nekk ñëpp ay soppee koddu lañu kon dañ lay ñaanal yàlla defal ko jàmm ak ñi mu nekkal ci waa kër gi ñi mu bokk ak sëñ Abdou Aziz Abo ñëpp nee na mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu ñëpp ak di ñaan lépp luñ fi ñaan rek yàlla nañ ko bokk ak julli ci yàlla yëpp nag di siyaar sëñ Muntaxa bu baax di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm suñu borom may ko wér bu baax suñ seex jëmb tam ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax kon asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.